rahmatullah ah, ñu ngi leen di ziar bu baax déjà di wax merci à nos frères journalistes frères et yi nga xamante ni euh, mélangé wuñu benn effort pour répondre présent à notre appel mu nekk appel ba am solo euh, daan na am ci yenn façon mais bu tey bii li ko waral moo tax mu demee nii déjà man damay commencer par rapport ak meeting bi nga xamante ni moom lañ jublu muy war a am dimanche bii ñu jëm dimanche 22 incha allah rabi fële ca Kër Massar terrain Yékini le pourquoi may commencer meeting boobu noonu ci biir sama waxtaan bi ngeen ko comprendre foofu laay commencer di wax ni ñu woo bépp ndaw fépp fu militant nekk képp kuy uyoo Pastef képp ku gëm projet PASTEF Dans nekk ba États-Unis États-Unis dimanche Inch'Allah, allah PASTEF Ousmane Sonko le projet libérateur soxla na la dimanche 22 janvier Kër Massar terrain Yékini une benn couche de la population bàyyiwuñu étudiant bàyyiwuñu euh, euh, euh, liggéeykat dans l'administration ouvrier nappkat càmmkat góor jigéen képp ku Sénégal ñor le projet libérateur Pastef Ousmane Sonko soxla na la dimanche incha rabbi fële ca Kër terrain yikini li tax nag commencé ci meeting bi mooy il faut que ñu xam actuellement fi ñu lii lëmbee dëkk bi il faut que nous xam lan parce que bu nous waxul ndaw ñi exactement ce qui se passe ils vont se tromper de cible Madame, dañuy juum ci seen objectif et c'est très important ñu leeral ko cette affaire que nous vivons est extrêmement loin nekk affaire u Adji Sarr Ousmane Sonko jóge na foofu yàgg na depuis Mathusalem Nous faisons face à un banditisme d'État boo xamante ni nag lenn kese kese moo ko ñor li ko ñor mooy li nga xamante ni moo tax Pastef juddu mooy li nga xamante ni moo tax ñu rey Mariama Sagna ak Kër Massar mooy li nga xamante ni moo tax ñu attaqué su suñu siège au niveau Yoff vandaliser ko gaañ na fa nekkoon li ko waral. bokk na ci li nga xamante ni moo tax Ousmane ko ñàkk liggéeyam ñu toroxal ko bëccëgu ndar kàmm un fonctionnaire qui a passé toute sa vie servir le Sénégal dignement génn wax na pendant fukki at juróom yi ma servir Sénégal ku ci gis fukki dërëm bu ma lewal bu ma bu bu bu ma jël te moomu ma ko tëj ma ci kaso bi ñu torox ko ba toroxal ko bëccëgu ndar kàmm li ko waral tax na. ñu créé fii un soi euh, euh, euh, affaire sur beauté xaw ma rey ci wala fàtti quatorze bakkan ay ndaw fàtti ay homme de tenue nan dañoo réer muselé ay journalistes tooxal leen tëj plus de quarante huit jeunes ci kaso bi ci yaama neex li mu du li muy xam nga mooy lan mooy uuti gi nga xamante ni le président Ousmane Sonko fas yéene ko uutu Macky en 2024 pour jëmmal concrétiser li wax le projet de n'est que le projet libérateur gannaaw bi mu nekkee projet bi nga xamante ni ñette ko tax a jóg ci Sénégal ci loxo sénégalais yi soqali Sénégal à travers les sénégalais waaye fexe ba koom-koom bi bénéfice bi dellu ci Sénégal ce projet bii nag tax Ousmane Sonko ñàkk liggéeyam ce projet aboutira en 2024 avec le président Ousmane Sonko au palais Inch'Allah rabbi lui moy en réalité li nek en jeu lui en réalité li nek en jeu la candidature du président Ousmane Sonko voire l'invalidation de la candidature du président Ousmane Sonko président Macky Sall dafa paré tek Bakanam. tek Bakanam pour que même mon bu candidat Ousmane Sonko en 2024 Nous pour que Sonko en 2024 en mars 2015 le fekk Karim Wade ko un candidat potentiel pour l'élection 2019 redoutable candidat adversaire de Macky Sall exilé ko rendre ko inéligible trois ans après mars 2018 un candidat déclaré qu'il était en tournée de campagne Khalifa Sall nous avons ko tëj ko ci rendre inéligible trois ans après mars 2021 nous avons président Ousmane Sonko arrêté ko fas ko pour rendre inéligible nous, nous la ferme volonté de dégager ce régime médiocre ce régime incompétent bandit sadique et sanique pour tout yor Nous, nous, ça a réussi pour certains ba ci Diaz maire de Dakar son dossier mu ngi cassation candidat mais Diaz risque même de perdre ses mandats de maire et de député Mimi Touré génn déclaré candidature am le lendemain ñu gënal ko UGE 2 milliards waaye tey ñu ne ce mascara ce truc de suivi bote la dafay dem procès loo xamante ni loo xamante ni y a aucune preuve palpable bu ko mën a prouver nee nañu lu ko yóbbu procès sama gars bu ñu nax suñu bopp bu ñu nax suñu bopp procès bi lenn kese la condamné Ousmane Sonko rendre ko inéligible gannaaw bi ñu ko si ñëpp waaye nag dégg nañ suñu président mu wax président Ousmane Sonko nee na bàyyi naa sama bopp yàlla bàyyi naa sama bopp ndaw ñi ñun ndaw ñi ñu ne ko du am ndax sa candidature day jàll par force ñun ndaw am ko président nee na daf ñoo bàyyee boppam ñun nee nañu ko Sonko damoo fen si toutes les preuves du monde étaient réunies dans dans l'enquête préliminaire de la gendarmerie falsifiées par le par le procureur tous les témoignages à décharge les audios aveux de de de de de certificat médical qui dit qu'il n'y a pas de pénétration qui a que des ndawam depuis Mathieu Zalem parallèlement, juridiquement, où on a un arrêté, où on a un arrêt de la Cour suprême, parallèlement, on a un arrêt de la Cour suprême qui disait que c'est pour finir un viol. Tant que conjonction sexuelle amoul, la première condition, c'est le quoi même. tant que l'on a amoul, un viol, on peut que je me La première preuve scientifique, pièce maîtresse pour prouver viol, mooy lan certificat médical kooku ñoom docteur ba ko saytu nee na phrase xëddéem rien waaye dama ne même bu yàlla wàccoon témoigner en faveur de Ousmane Sonko procès lay am pour Macky Sall parce que bëgg-bëgg Macky Sall la Macky Sall veut coûte que coûte coûte que coûte que Ousmane Sonko dem procès ñu condamné ko mu jaarale ko fi mu jaarale ñeneen ñi ba du nekk candidat en 2024 donc donc su ma nee su ma nee bu ñu bu ñu juum bi dafa am solo sama gars yi amul ay non na dem satal boppam non on on s'en fout dama bu ñu juum la vérité mooy affaire Adji Sarr voire affaire Sweet Beauté yàlla attal na ko ca début ba askanu Sénégal acté ko en mars 2021 Adji Sarr en personne acté ko à travers ses audios bu ñu sonal affaire Adji comme que le président wax na néna na lañu boppam ñun je pense que on est assez majeur et vacciné et mine de rien ce projet là dañ ko gëm Pastef dañ ko gëm mënuñ ko dañ koy noyyee di ko c'est au fait nous avons Pastef dans la peau il faut que mu leer nous avons Pastef dans le sang dama ne la médiocrité l'incompétence promouvoir sàcc promouvoir détournement promouvoir guerre mal gouvernance dama ne yooyu dafi jeex incha allahu rabbi incha allahu rabbi bu fekkente ni dama ne élection dem en 2024 amul président bu fi taxaw bu doon président Ousmane Sonko incha allahu rabbi ci kaw loolu nag may wax ne may wax ak sama morom parce que aussi bu ñu bëggee lu mu jaral waa mu jar ñu lu ko upp day fekk nak ñu taxaw ñu taxaw ñu ñep comme un seul homme Nous ñëpp ñu taxaw comme un seul homme def bouclier autour de ce projet waye def bouclier autour de celui qui incarne ce projet Moussa Sonko oui on doit rester debout comme un seul homme et faire face ceci dit kenn ku nekk ci ñun aussi nombreux que nous sommes suñu constitution nee na la boo nekkee ci nooteel sa devoir la nga résister ñun nag waa Pastef gëm sa projet dañoo nekk ci nooteel Sénégal dafa nekk ci nooteel et on est prêt à résister incha allahu rabbi et on résister on va résister may wax ni am na benn projet boo xamante ni parti bi da ko décliné tuddee ko war ndomba ñu dénk ko suñu frère le coordinateur de pasteur Dakar sëñ Mor Bousso mi toog le président Ousmane Sonko dénk ko projet bi moom ak ñeneen ñu dippee ko le projet war ndomba projet boobu lenn moo ko tax a jóg fépp fu ndaw nekk ci Sénégal war a toll wala war a nekk en âge de voter en 2024 bu faites ne amuloo carte d'identité ñu fexe ba nga am ko bu carte électeur ñu faire ba nga Vous ko bu carte d'identité am carte électeur vous ne pas ne pas voter nous fexe ba nga voter vous ñu voter le vote utile donc c'est le recensement de tous les primes votants fépp qui ñu mënti Sénégal fexe ba ñu vote massivement ndax ndaw ñi projet bi la ñu gëm ndaw ñi Ousmane Sonko la ñu gëm nañu leen dimbali nga la waay ñu uti carte électeur mën a voté ji en 2024 même les yeux bandés la jeunesse sénégalaise votera pour le projet de Ousmane Sonko même les yeux bandés ceci étant chers frères et chers sœurs Pastef ñett lañ ko xamee gannaaw un discours sérieux rigoureux et véridique Pastef ñu ngi ko xamee éthique Pastef ñu ngi ko xamee liggéey travail ñu ngi ko xamee fraternité waaye un patriote un patriote gëm réew mi gëm Sénégal lépp luy taal Sénégal nekkuñ ci lépp luy taal Sénégal nekkuñ ci te ku jóg pour taal réew mi nañ jàkkaarloog yow te dañoo gëm ne nag sa régime en place daa pare pour taal réew mi de lii may waral ñu fas leen taxaw temm résister Nous avons rendez-vous je répète dimanche Ousmane Sonko le projet mo à on doit faire bloc autour de ce projet dimanche on doit montrer à Macky dimanche que les chef bi mu vous bu taxane mu ko bu chef ko ndax dina gis lu gis tamit dina